comme ñu ngi doog a dugg ci euh, weer bu neex bi di février sama weer la donc du coup pendant tout le mois de février lu ma fi fekk comme teranga dama koy maye donc woote leen 88 676 06 06 wala 88 628 22 22 en tout cas numéro bu ngeen woote rek léegi mën naa joxe 200000 mën naa joxe addiya 300000 mën naa joxe addiya 400000 léegi nag dama indi tey thème bu am solo muy muñ. Mm-hmm. xam nga damay faral di dégg ci borom xam-xam yi ñu naan euh, yàlla kuy muñ la àndal mais balaay muñ. Hmm. lii ñu Pape Samba tegal léegi nii bi émission bi di bëgg a commencé muy euh, euh, terte ba ba amoon ci diggante Seydina Muhammad ak askanam ci diggante yonent bi ak ñamu fekki woon ci diggante yonent bi ak waa Makka ak Médine ci diggante yonent bi ak keroog bi nga xamee ni mu ngi yegg si ba taalal badru judd ci yaawu saas parce que loolu saa yu koy nettali rek man gis naa ci ay nit yoo xam ne dañuy daanu leer quoi dañu ko génnee màkkatal mukarram yàlla ni ko demal ci dëkk ba nga xam ni maa la ko choisiral muy madinatul munawwara waa màkka dañu ko contrôle moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mul ko jikkoom waa màkka li ñuy contre sayduna muhammad yëpp sallallahu alayhi wa sallam ñoo dem ba d'accord ñoom ci seen biir ñoom ñi ko contre ni ko tuddee nañ la al amin mbaa du mooy al amin bu waaw kon ba ca Màkka ñëwaat Tiwaawan. mooy ba ba ca Màkka mooy ba ca Tiwaawan. kon ñun Sénégal yàlla daf ñoo beral loxo. al amin ca Tiwaawan al amin ca Medina ca Medina. <laughs> mais ñoo xam ni d'accord ñoo yow. Mhm. loo wax ñu xëpp ci suuf. ñoom ñoo dem ba d'accord ni Seydouna Muhammad kaana aminan ñu tuddee ko al amin. al amin moom la tubaab naan nul n'est prophète chez soi. mooy ku nu wóolu kii. Ah. ànduñoo gi yow ci li ngay woote. d'accorduñu ni yàllaa la yónni waaye xam nañu ni kuy wër ku jub na la jàpp yow muhammadu rasulullahi ñoom waa Makka ñoo ko d'accord waaw ah, loo bañ bañ naka lañ ko am sax mooy xaritam ah waaw daan na wax ni bu ma yàlla ni woon wan ma sa xarit ma ni ko Aboubacrine mii mooy sama xarit man de saa ma demee Médine portale wu ca ca ca xabram mënta ñàkk pa waaw waaw dafa ni sax maa ngi waajat ànd ak Eva Voyage xam nga man Eva Voyage laa laa wóolu wala paate daf may woo tey moom émission bi yëpp paate laa ko tuddee <laughs> Pathé Ba monsieur le maire. <laughs> yaa ngi dégg ba maire Medina waaw. oto nga xam ne amul woon xalaat waaw li ngay njëkk xalaat mooy jamonoy Seydina Muhammad la doon tere amul woon fa yonent bi daan jaar. looloo ma jaaxal dëkku xeer la déjà. alaaji Pape pas pas a wóor. ak tàngaay bi. Rasulullah da daan war gileem alaaji Pape topp tracé bi. Mhm. jóge Makkatal Mukarrama jëm diina ah. bi mu yëgee ni waa makk am nañu départ pour karse ko mm. Seydina Muhammad escale ca xuntuma alaaji Paak moom Aboubakar mm. gis nga bi ñu duggee ci xunt mi ñi leen doon topp bi ñu agsee gis tànku jargooñ yi ci mm. wetu pax mi dañu seen yaakaar dafa tas dañ ne ah kañ doon topp de raw nañu ndax fii nit mënu fee dugg ah. ndekete Seydina Muhammad dafa dugg rek jargooñ yi wëraat ko installé ko ba mu mel ni fii du pax ngir dolli sécurité Seydina Muhammad nanu pitax yi nag. waaw ak seeni tàgg. moom lañ dañoo tàgg ca kaw pax ba. Ah. ndaanaan laa nag ndaanaan loo ma bañ bañ bañ bañ bañ nangul ni ndaanaan laa lii la yàlla dogal yaa oustaz yaa <laughs> ah. ak tàgg bi tàgg yi. Mm. Pape mm. gis nga bi tàgg yi tàggee ci kaw. Mm-hmm. ku ñëw doo jàpp ni nit a ngi ci biir. mi ngi mel ni souterrain. doo jàpp ni ci suuf am na ñu fi dëkk. petax mi dafa ñëw tàgg ca kaw. Ah, yéeféeri màkk yi bi nu ñëwee dañ ne ah fii nit nekku fi. dañ fay tàgg. alaaji Pape Seydina Muhammad ci biir xunt mi. Abu Bakrin ci biir xunt mi. Abu dugg ci biir xunt mi gis xunt mi bari ay pax. mu ni pax yi amaana bu fi jaan dëkkulit lu nuroog jaan mën na fee dëkk. jàpp ni ay paxu jaan la. waaw parce que dañoo ragal. xam nga nu def. Mhm. bi mu xoolee pax yi amul lu mu ko saañee moom Aboubacrine. Mhm. dafa dindi yéreem. Mhm. ak kaalaam. daggate ko. pax mu nekk mu saañ fa dara. est-ce que. Seydina Muhammad a ngi tëdd ci suuf. Aboubacrine dafa saañ pax yépp ba mu des benn pax abu bakrin amul lu mu saañee pax moomu alaaji pap mu jël tànkam teg ko ci buntu pax mi te jaan ju mag ji fa la nekk <laughs> fa la fa la ñàngoor man ñàngoor la xëy akbar laa waaye xam nga looy jàngatee loolu mooy abu bakrin dafa jeex takk ci rasulullahi day day jàngale man sa nit dafa mën nitam loyauté abu bakrin bi mu duggee ci xunt mi mhm. existeetul maa ràññee Youssou Ndour exemple la ngoogu Mbaye Gueye Faye Youssou Ndour exemple la ngoogu man ak Pape Samba Thiam <laughs> nit da mën sa nit alaaji abu Aboubacrine mhm. bi mu duggee ci xuntu mi mhm. yëgatul ni moom Aboubacrine existe na mhm. li mu jàpp mooy kenn existé te mooy Muhammadu xam sallallahu alayhi wa sallam cey alaaji Pape mu jël ay tànkam teg ca pax ma alaaji Pape Jaan Jeeg abu Aboubacrine ne du teggi tànkam. Jaan ja da koy matt. alaaji Pape Jaan Jeeg Aboubacrine Aboubacrine ne du teggi tànkam. Jaan amul caaxaan. alaaji Pape Jaan Jeeg Aboubacrine Aboubacrine ni ko. Jaan du soo ma naree mank mm-hmm. soo ma naree matt. Mm-hmm. wala nga nar a matt Seyduna Muhammad matt ma man abu ci loo yor ci dangar ma supporté ko te Rasulullah mucc. xarit bu mel noonu amatul. déedéet loolu loolu mënatul ne. la am man lu ñu xaritoo xaritoo xaritoo bu la jaan doon matt <laughs> wala war maa matt. ñu ne ma jaan ji kan ngay bëgg mu màtt ko dama naan ko màtt ko ba lekk ko <laughs> te nga libéré ma <laughs> mais xarit bu mel noonu amatul. alaaji pap mm. abou bakrin na jaan ji du yëkkati tànkam jaan ji ne ko yëkkatil mu ne ko du ma su dee bànneex ma bàyyi ko mu def direct ci rasulullah sallallahu alayhi waaye bu dee luy lore mm. lor du àgg ci yonent bi mm-hmm. alaaji pap abou teg tànkam jaan ji ne ko yëkkatil abou bakrin lànk mm-hmm. alaaji Pape jaan ji matt abu bakrin dangar ji yéeg abu bakrin ne du yëkkati tànkam mhm. dangar ji day yéeg ci yaramam di yéeg ci yaramam ba mu yàgg mhm. rangooñ yi commencé génn ci ay bëtëb ndax chaleur di chaleur chaleur dangaru jaan ji te foofu muñ sax day ñëw foofu alaaji Pape abou bakrin taxaw mhm. jaan jaa koy matt abou bakrin taxaw dangar jaa ngi yéeg abou bakrin taxaw alaaji Pape jaan ji dafa matt abu bakrin ba rangooñ yi tuuru rangooñ yi dafa tàng moo dal ci tànku Seyduna Muhammad yonent bi si gitteen xool Abubakar ca loolu dama ciy def addiye léegi ad ad addiye Seydina Mouhamed ku dugg léegi ma may la deux cent mille cent cinquante mille wala trois cent mille yow naa la ci defal ay naa la. sama porte parole bii lu mu wax maa ko wax. sang beeg Serigne Bass Abdou Khadre. yàllaa ko njëkk a wax Seydina Mouhamed. ngalla waay yaay tànk yi may doxee. yàlla dani rasulullah yi sa làmmiñ mooy sama làmmiñ. ay bët yi may boo xasee communiqué jaratul may communiqué loo wax yow Mouhamed. Mhm. maa ko wax man yàlla. Mhm. ba pare yàlla garanti ko ni moom maa yantiqu anil hawa. Mhm. du wax ci maa ko wax. alaaji Pape Seyduna Muhammad génn. sallallahu alayhi wa sallam ànd ak Abu Bakrin Siddiq. Mhm. madinatul munawwara leen jëm. waaye ba nu déparé ñoom ñaan ca yoon wa avant ñuy àgg. Mhm. la yàlla yónni Jibril. di ko lundi passé na. Mhm. mardi passé na. di passé na. jeudi passé na tey la vendredi. sa borom nee na ngeen julli ñaari rakk mooy vendredi bii ñaari rakk yi ñuy julli. ah mooy mooy mooy julli àjjuma bi ci yoon bi lañ leen ko joxee. kon Abu Bakrin ak euh, bu doon jamono ji dañ leen di tegal da ngeen di jaay am fit laal ma laal nga laalaake. waaw ah baxaaw yow kon téere nga waya ah, pap Abu Bakrin ak Seyduna Muhammad ci seen yoon woowu avant ñuy àgg Madina. Mhm. ci la leen Jibril indil julli juma. Ah, kon noonu la julli juma demee kon. waaw bis boobu lañ ko njëkk a julli ci yoon wi. ah oui da leen a dab. yàlla bàyyiwul ba Seyduna Muhammad nekk màkk mu indil ko julli juma. parce que man loolu jaaxal na ma lan moo tax. juma ñu juri ñaar julli ñaari rakka tisbaar lay tombeel te en ci yeneen bis yi tisbaar ñeenti rakka la man loolu xaw na ma jaaxal. parce que li waral loolu mooy. Mhm. julli juma dafa am xutba. Mhm. boo déggee ñu ne la bu imam di xutba bul wax. parce que ñaari rakk yi nga waroon a dolli ci tisbaar julli ko ñeenti rakk xutba boobu moo remplacé ñaari rakk ñaari rakk yi tisbaar. Ah, xutba bi comme ci julli bi la bokk. xutba bi daa bokk ci julli gi moo tax ñu ne la boo waxee comme boo waxee ci julli sa julli yàqu boo waxee ci biir xutba sa jumaa yàqu na waaye lu tax mosoo leen ñu ko jàngalee nii parce que da nga ñu naan non xutba da ngaa war a déglu donc on se dit c'est juste par respect bu imam bi dee xutba parce que kuy wax dañ koo war a déglu mais bu ngeen ñu xamaloon yéen ñii dès le départ ni xutba bi ci julli bi la bokk